moo moo moo moo moo muy moo muy gënal moo muy gënal. ci ci ci fekk gi. waaye nii la ko suñu borom dogal. bi teewaay bi amee nag. te sëñ Yàlla mii wax xaas ji. xaas ji dafa am lu ko dëggal. ci lu doy waar. ndax fii barab bii. xam naa ne eh, fa ma fa ma dëddoon. ci biir mbaar mi la nekk. ma tëdd fa. sëñ bi mel ne lu mel ne ngaañ ma nga ne damaa nekk ci ma aw sàkket nii. Eh, nga ne da ngay da ngay jaar ne. ba ci bunt bi nga ñëw. sëñ ma gis sëñ bi jaar ne. ba ci bunt bi. mu ñëw jox ma jox ma ndox gurub sukk ma gurub sukk. ñaari loxo di alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah waaye sama xel na yar damay sama xel na yar ci mbaxana mi ma ma benn loxo ma di dundee mbaxana mi mu rëcc loxoom benn ma xool si ko mu jaar fii ci barab bii ci barab fii ma foo doon génn génn mi fi wallahi ay Mbacke ndokke noonu rek ndokke noonu ndokke noonu ndokke noonu loolu ndokke nga loolu fekk ma te nii mi ma diisoon ma nga ndax ndax dama dama dama ñëw rek ak coono yu coono yu coono yu doy waa ak coono yu ma ne ma noonu ma ne dal si ba ay fan door dem ndax damay ñoŋal kër ga ginnaaw su nekk sukkuri sëñ bi la dama koy ñoŋal bañ mbooloo mi di ko moo tax may damay nekk ba mu jege ma door faa dem ñu dem ma fa loolu nag ci laa nekkoon moo tax ma ñëwoon fii ba eh, bi ngeen bi bi ma sañ am sañ ñëw sax jàpp moon nii la demee waaye ah, bi nga xam ne ñëwee nga dem mu demee nii ma ma ma ma xa ma tàngaayoo xataay ma jàppoon na nag ma fee fee doon gën. loolu ci soo xel ni waaye waaye du waaye nag waaye ma gannaaw bi ma xoolaat seetlu loolu ndekete nga xam ne si ñëw na ba nga jox ko wallaahi naa moo ma ñëw moo jaar ne ñëw dugg ci bunt bi. Mbacke damaa jox gii ma lay jox loxo ma joxe laa joxe laa leen ko murid yëpp murid yëpp rek. murid yëpp moom moom lii moom lii moom moom ndax moom sama xel nekkuloon ci loolu. waaye nag bi ni ni jotaay bi demee. Ah, ma bëggoon mu gën a yaatu mu nekkoon ma fekk mu tiis ma ci ma xol tuuti faaf sëñ bi wax xaas ji sama xel door a dem ci loolu ma xam ne xaas ji moom kon loolu kon loolu kon ndekete moom loolu ma ngoog loolu rek la loolu noonu daal la demee jaafee jaar bi ci buntu jox ma loxo ma mën guru sukk jox ko ñaari loxo di di su jiw ci loxo bi di wax alhamdulilah alhamdulilah waaye sama xel ne yar na ci mbaxana mi may fanaanoo ma ma ma dindi mbaxana mi moo ci loxoom dem ma xool ko mu jaar dem fii fii ci barab bii barab bii ndax lii moom yéeme doy na waar yéeme na. waaye nag ñoom day ab tàmbali rek la ab tàmbali rek la. waaw ah, moom de waaw ah, moom de doy na waar moom de moom de doy na waar man de ma xam sama ni ma xeeboo. Ah. ñu koy mbàkke ñu koy mbàkke dimbali leen rek dimbali leen rek ba yéene ji ñu am ndax ci liggéeyal sëñ Tuubaa sa jëmm ji ci ci waxtu wii la sëñ bi dénkee yoon bi nga war ko ci liggéeyal te ñëpp am yéene ànd ko ak yow ñoom bu leen ci kenn man kenn kenn du leen ci yàlla nga gisee ngërëmul sëñ kenn du leen ci kenn du leen ci kenn du leen ci man ma waaw ne ñoo ñoo ci jiitu ndax liggéey bi liggéey bi liggéey bi rek la liggéey boobu lu ñuy lu bëgg liggéey la waaye bi mi ngi fi mosulee jóg te yéen a ngi woon ci liggéey bi kon kon kon kon kay moom moom dañ leen a fekk ci liggéey bii da leen benn liggéey bi rek la te mosu leen ci jóg kon kay liggéey bi moom lu <laughs> yees ñëpp lu dëgg ma bëgg nga demal sëñ koy dund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 dolle da xëjul cim nen soxna jaara lañu wóolu masula julli te jàppul masula julli te wildul loola kay sangam tuubal daal di wër këram buubal nuy jaayi dëkkandoom nu ji yekk jigéenam soxnante njaayi mbokkam saaloon so maaram loola wal sëriñ jaabaan sëriñ jaabaan rekki